tey jile euh, Marcel la ñuy àndal kon ba tey seen euh, rubrique euh, tey jile Marcel nga tànn wax ci gaz ak Sénégal statut bu bees maanaam taxawaay bi mu am ci àdduna ci wàllum exploitation bi. depuis démb mën nañu wax ne Sénégal daal di nay ouvrir un nouveau ci li nga xamante ne moom mooy statut am bu bees donc une nouvelle étape ci li nga xamante ne moom mooy puissance gazière gi mu doon léegi donc Sénégal daal di rek dugg ci li nga xamante ne moom mooy le prestigieux Gas Exporting Countries Forum, euh, donc GECF wala en langue française Forum euh, des pays exportateurs de gaz FPEG euh, mu gis na ne kon Sénégal ñu daal di koy intégré démb donc mardi gannaaw ñaar fukkeel ak ñeenteel conférence ministérielle organisation internationale boobule nga xamante ni démb lañ ko amal kon ca réewu Égypte au Caire plus précisément soxna Naata. certainement ñu bëri ñu koy door a dégg mais c'est quoi exactement forum bi. voilà forum bi mën nañ wax ne ne benn forum buy boole ay gouvernement yu bees yu kon intergouvernementale visant à défendre li nga xamante ne moom mooy intérêts euh, nationaux euh, principaux pays exportateurs de gaz euh, naturel ñu créé ko atum 2001 ca Téhéran ca réewu Iran donc boobule boobule forum ñuy fàttali ne que gannaaw huitième session informelle boobule forum bu amoon ca réewu Russie ca Moscou en décembre 2008 GECF ñu daal di koy transformé en une donc organisation gouvernementale internationale te nga xamante ne léegi siège mu ngi ca Doha réewu Qatar comme par hasard avec la du monde qui <laughs> E COCF mu nekk benn organisation bi nga xamante ne donc c'est informel te membre yi euh, ñoom dañuy daal di rek euh, di dajaloo euh, chaque année benn yoon at bu ne donc appelé aussi l'OPEP e du gaz le GECF nekkagul puissance ci ci wàllu boobu comme OPEP e ni mu ko ni ko nekkee waaye ñu gis na ne ci jamono ji ñu toll te ñu te te mu am li nga xamante ne moom mooy une crise énergétique mondiale dañuy gis na ne poids wu boobule forum day daal di gën di renforcer wu donc son poids Euh, ñu gis na que GECF ça pèse des réserves mondiales de gaz et de la production et puis ñu gis na ne que pour la première fois donc depuis ba ñu ko créé atum 2001 le GECF est dirigé par un Africain en l'occurrence l'Algérien Mohamed Hamel soxna soxna alors euh, alors euh, Marcel ñu xoolaat tuuti taxawaayu Sénégal ci wàll boobu. ñu xoolaat Sénégal ci wàll bi nga xamante ne moom mooy statut boobu noonu maa ngi ko doon wax sànq statut bi nga xamante ne Sénégal daf koy gën di am ci puissance gazière

réew yi bokk ci organisation bi. voilà ñu jeexalee foofu euh, soxna naata donc euh, ñuy fàttali donc démb euh, Sénégal gannaaw ba mu donc ratifié li nga xamante ne moom mooy boobule organisation muy nekk donc le vingtième membre de ladite organisation te nga xamante ni désormais juróom-ñetti réewu Afrique ñoom ñoo koy composé Nigéria Angola Algérie Mozambique. Égypte Guinée équatoriale ak Libye donc ñoom ñooy yeneen juróom-ñaari pays membre africain membre bi nga xamante ne organisation boobu di GECF la waaye euh, bu ñu sukkandikoo ci ay analystes yu bëri daal ñoom neneen Qatar Russie ak Iran ñoom ñooy former la grande troïka euh, gazière donc euh, le noyau dur de l'organisation bi nga xamante ne day susceptible rek ngir transformer ce cartel de type OPEP justement et puis gis na les autres membres de ce fameux GECF sont donc la Bolivie Trinité et Tobago le Venezuela l'Azerbaïdjan l'Irak la la Norvège, le Pérou et les Émirats arabes unis soxna Naata. Mm, merci beaucoup merci Marcel euh, pour tous ces détails jërëjëf euh, ci euh, rubrique bi alors léegi dañuy jàll ci benn.